l'observateur xëy ci xët mu njëkk mi ngi ñuy wax lu bari ci moom ni ko coronavirus bi dalee ba ni mu ko moomee moom Momar Gueye Diop ñu gën koo xam ci turu Talla Diop juróom-benn fukket ak juróom-ñett la amoon ba muy faatu directeur école bu retraité la woon doomam ju góor moo ko wàllu coronavirus bi ne doom ja dafa liggéey woon wàcc yaram wi di miti ndekete booba dafa amee coronavirus bi te xamu ko góor gi di commencé fa la contact moom it mu jël ci jàngoro ji jàngoro joojee di coronavirus ba moo ko faat Vox Populi nañu ci diirub 72 heures maanaam ñetti fan coronavirus bi faat na ñetti nit ci réew mi ne ginnaaw retraité bi faatu faatu keroog àjjuma ci ngoon ci Sigicoor ki faatu keroog dimanche dëkkoon ca Kër Massar am na it keneen ko faatu démb ci suba Vieux Ndiaye la tudd unité 16 bu Parcelles Assainies fa la dëkkoon réew mi ak fi bilan coronavirus bi toll Vox Populi nañu moo di am nañu ñetti téeméeri cas ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ca cas yooyee ñeen fukk ak ñaar ay cas communautaire lañu ñaari téeméer ak fanweer ak juróom faj nañu leen ba ñu wér juróomi doomi aadama faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus am na it yeneen téeméeri nit ak fanweer ak juróom benn yuy faju ca marché Ocass bu Touba journal bi nee nañu juróom-ñaari cas communautaire am na fa moo waral ki kilifa ya foofee jote ndigal ci xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru ngir ñu tëj marché ba Le Quotidien nañu moo tax it ko tëj ñetti gis fa kàddu yu président Macky yu mu wax ci journal tubaab bii di Le Figaro muy xam ne confinement mënut ñàkk ci réew mi moom président Macky wax na ci ne am nay gëstukat mu di ay chercheur yoo xam le ne ji dina gën a bari Afrique ci weeru juin waaye wax joojee jarut xaatigoñ ne gis nañu ne yenn épidémie ñaari nit faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus bi ci diiru 24 heures cas communautaire ñu fi gën a jàllaañoo démb rek am nañu ci réew mi fukki cas yoo xam ne juróom yi ay cas communautaire lañu libération bi di Médina bomba fi tiim boo xam ne bés bu kalaatee gisandoo lay doon fi ñu tollu tembe këru courant gii di Senelec jax na La Tribune Enquête ba ci libération ñoom ñëpp xëy di ñu wax la am ca Senelec dañu leen waxoon ne Akilee filialu Senelec la te loolee amul syndicat yi nekkoon ka liste yi ne contrat boobee bu ñu ko bàyyee mu jàll mboolem lu ñu mës a liggéey ci Senelec lépp ay gasax Les Échos ñu syndicalistes yi ca Senelec xotti nañu tareet contrat boobee nga xam ne kilifa yi woon ca Senelec ñoo ko signé woon ak société Akilee muy syndicat bi di nee nañu li directeur général bu Senelec di Pape Mademba Bitèye bëgg bu mu ca dellu gannaaw na dog contrat bi bu nuppi ubbi cib enquête ndax contrat boo xam ne ñi ko def seen intérêt bopp la ñu jiitaloon waaye du intérêt Senelec te contrat ba bu sottee askan yu ñoo ci nar a dee ba dee daal yéenekaay yi bëgg bi di Akile syndicaliste yi wax nañu ko ba wax ko la maamam daan dunde ca guerre ba contrat boobee dox ci diggante Senelec ak société Akile la bi nee nañu gaaña scandale corona la ñu ko tuddee